ñëw tey pour waxtaan ak moom ba tamit mu ñaanal ñu ci suñu télé bu bees bi nga xam. di sant yàlla di sant yonent bi di sant ñëpp di sant euh, monsieur le maire Ba di sant euh, président commission santé sociale bi nga xam ne moo ñu fi dajale tey télé bu bees bi ñëw samp fi tey télé bu bees bi nag lii lu yàgg am na lii wane na ne Fatick am na avancement. ndax lii la ñuy ñaan ndax lii mooy avancement bi ñaanal nag ci créer télé bii yal toog ba am lu ëpp télé bii ki ngeen tuddee télé bi rek doy na tudd Mindis mooy borom dëkk bi Mindis moo aar dëkk bi suñu maam Mindis la yal na télé bi du ñu borom yal na bi du nekk borom yal am yal uuf ñëpp ndax kooku borom njaboot la asalaam man la euh, Zakaria Kébé nekk chef de cabinet bu maire bu Fatick monsieur Matar Ba di am euh, mbégte di leen dalal tey waa Mindiss TV mu nekk loo xam ne tur bi rek c'est historique parce que bu ñu waxee Mindiss dafa représenté lu bëri fii ci Sine donc euh, lii dafa doon loo xam ne bu soobee yàlla du am tànki ginnaaw tànki kanam rek la jëm télévision nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la jumtukaay bu xarala la ci wàllu am communication ci wàllu am information waaye itam ci wàllu jokkoo ndax mbir dina am Fatick ñu jàllale ko ci télévision àdduna bi yépp mën ko seetaan mën ko gis kon loolu bu ngeen ci taxawee nekk ay jeunes dañ leen di ñaanal télé bi jëm si kanam leen di dënku rek mooy que ni euh, lu mel ni boo si duggee bul am xàjji bul am seen Parce que télévision, du pour Massamba, du pour Mademba, c'est pour la population. Population, ce n'est pas à l'échelle communale ni régionale, mais c'est à l'échelle mondiale. Pour nous, nous wax le traitement de l'information. ngeen mën a am source yu leer nañ ba nga xam ne lépp lu ngeen jël jàllale ko ci seen télé bi kenn du leen ci xaram vraiment lu ñu kontaan la te jàpp nañ ne kilifay dëkk bi ak képp koo xam ne itam kilifa nga nekk ci dëkk bi war nañ ci mën a jàpp muy ki nekk ci pouvoir ak ki nekk ci kujje politique parce que lii njëriñal Sine la njëriñal Fatick la njëriñal Sénégal la kon tàllal leen ñëpp loxo da leen dem ci ñëpp di jël information yi di ko jàllale à temps vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax ci wàllu programme defe naa ne li nga xam ne moom laa wax léegi rek dama leen wax ne télé bi dafay laal àdduna wërngal këpp waaye bu télé bi sampoo fii ci Fatick da nga xam ne dafa am li ñuy wax diversité culturelle ak ethnique ñi fi bokk dëkk fi xëy na ñëpp bokkuñu waasu waaye nañu faxe lal ay programme yoo xam ne dina fexe ba ku nekk gis ci boppam ñu bañ rek ne télé bi télé séeréer la wala télé jeunes la wala télé ñeneen la kon programme yi nga xam ne moom lañuy ñuy dina doon loo xam ne dina am cosaan ak aada dina doon itam loo xam ne dina intéressé mag am loo xam ne day intéressé xale mais ñuy dem itam ci wàllu information parce que itam euh, jamonoy léegi ji nit ñi dañu war a am information kon fépp foo xam ne rek activité am na te ngeen far fa mën a yegg war ngeen fa mën a dem ngeen jël loolu taataan ko ngeen dégtal ko askan ñoo disponible ñun waa Mindiss yi ku ñu woo rek ñu ñëw defal la couverture bu amul fenn boo xam ne nii Mindiss rek nga koy amee incha allah tonton ñu lay remercier bu baax di la souhaiter une très bonne